di kontaan bu baax ci seen ñëw fii au nom de monsieur Idrissa Tall mi nga xam ne mooy suñu responsable politique moom moo ñu fi yabal tey pour que euh, ñu ñëw ànd ak suñu mbokk journaliste yi ñëw jox leen benn loowu masque bi nga xam ne ne eh, depuis ba Covid 19 bi commencer ba léegi euh, gisuñu kenn ku leen si jàppale moom nag mu xalaat leen ci macha allah daal di leen euh, fas yéene remettre tey ay ay jox ay ay masque pour jàppale leen ko. Euh, comme niñ ko xamee nag euh, responsable Idrissa Tall dafa doon nit koo xam ne dara du ja du am rek mu tëb tëb dem def day jékki-jékki toog ndax nit yàlla def na ko mu nekk nit ku dal nit kuy xalaat mu mu toog ba dal ba xool ne ba mu dalee dégg affaire bi commencé ba léegi déggu ci journaliste yi ak faiblesse bi ñuy jox ñi nga xam ne ñoom ñooy les premiers ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, malades yi ñoom ñooy njëkk a contacter malades yi muy surtout les ak yooyu. léegi moo tax mu xalaat leen journalistes yi nga xam ne yéen a ngi sur le terrain yéen a ngi nekk à risque ci maladie bi ñu fas yéene leen jàppale jox leen ay masque tey pour protéger leen si Covid 19 bi. nu mu ko yàgg a defee nag euh, monsieur Idrissa taal nit la ko xam ne nii lépp lu muy def daf koy yàgg daf koy def ci sutura action yi muy def si région bi ñëpp xam nañ ko.

jàppale nit ñi ay aide korité ay aide tabaski biñ ko joxee ren militant yaa militant yaa ngi fii duñ ma bàyyi ma fen ñëpp dañoo dañoo dañoo dañoo am surprise parce que ne woon nañ fii fii fii jamono ji toll mu ciy xalaat nit ñi ba di leen di jàppale mais nee na tant que mi ngi koy mën da koy def xalaatul question politique moo am heure bi wala politique amul heure bi jàppale askan bi moo ko tax a jóg jox askan bi moo ko tax a jóg loolu moo tax lu mënti xew te tant que mi ngi koy mën incha allahu rabbi dina jox population bi fu mu toll dina leen jàppale moom ci loolu lay dox. te li ñu commencé nii tey muy joxe masque yi du yem fii rek tey tey lañ ko commencé mais bu soobee yàlla mënuñu wax nag euh, nombre de masques yi def parce que pareeguñu. parce que li ñu li ñu li ñu bëgg a un ay masque yaatu na vraiment nous ngi ñu ngi mais nak euh, bu yalla dañ koy continuer ci ci ci yu bari ci structure yu bari muy ci côté hôpital yi ci population bi aussi en même temps ci marché yi loolu lañu ñu def di leen remercier bu baax. Au nom de monsieur Idrissata, responsable politique APR et animateur de sensibilité à Kaolack venons vous saluer et vous remercions de votre aimable présence en cette cérémonie de remise de masques aux journalistes de la région de Kaulak pour lutter contre la pandémie qui est la COVID-19. Il est constaté que depuis le début de la pandémie, nos veillants journalistes qui sont aux premières lignes, comme les forces de défense et de sécurité, et les médecins sont laissés en rade dans la distribution de cet outil essentiel euh, dans la protection des populations. Ainsi, il nous instruit de vous doter de masques pour renforcer votre intervention dans la sensibilisation que vous menez depuis l'apparition de la maladie. Cet acte de M. Idriss Tal vient continuer les nombreuses actions déjà menées sur le terrain en faveur des populations de la région. Il a ainsi financé plus de 250 groupements de femmes sur fonds propres et non remboursables à hauteur de 200 000 par groupement. Ces financements viennent s'ajouter aux appuis permanents au profit du mouvement Navetan communément appelé le mouvement associatif, sans oublier les aides pendant les cérémonies religieuses, sans tambour ni trompette depuis plus d'une décennie. Il s'engage à continuer sur ce sacrifice au profit de la localité tant que le Tout-Puissant lui prêtera longue vie. Dans la même veine, il ne ménagera aucun effort pour accompagner la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Merci de votre aimable attention.